ñun bi ñu bàyyee bi ñu bàyyee dañu bayé ñu ñu bàyyi ay vingt 21 vingt une heures lañ génn prison bi ñu génnee dem ci greffe bi jox ñu suñu suñu papier libérable bi ñu ñëw ba si bunt bi dañu ñëw fofu dañ koy signé am ay carte ñu ci def pour jox ñu ko pour délawat ñu ko bi ñu koy am ay nit yu taxaw man j'ai pas compris ñun comprendre bi ñu bi ñu jotee suñu papier rek gaay yi laaj ñu suñuy papier libérable alors man je me suis dit waa ñii la mu non ñu ne c'est la police mané lu xew ñu ne non sous contrôle judiciaire la ñu alors man fofu laa ne <laughs> mais gars sous contrôle judiciaire pour là parce que ñun devons dara quoi lu ñuy toppee sous contrôle judiciaire après ñu non il faut ngeen dem commissariat buñ démé demee après gën signé alors mon wax naa ci si bi man do ma signé alors bu ñu demee ñu dem ba dugg ci commissariat bi ñu dem ba dig ñu top moom la dañuy génne sen yoy may la man du signé dara laa signé wul quoi man du ma signé ay sous contrôle judiciaire yo xamanteni ni ma gis ñu sàcc ay milliards et milliards ay nit taxaw def ay ay ay délits yu doy war parce que pouvoir bi lañu àndal def crime délit bu nekk def nañ ko fi dara fekku ci man defuma dara dañ ma tooñ sama papa décédé troisième jour dëj bi lañ ma jàpp di ma kookali ma 4 mois de prison defuma dara ma guen ñu ne ma da ngay signer sous contrôle judiciaire pour chaque mois may dem di signer nan jugement maa ngi fi ma ma xam jallo quoi ma xam jàll li mu yor ci dossier bari na amna yeneen ni ko maanaam am lu ko lima pa paa boo waxoon lu ko doy mu bëgg tubay ma xam jàllo fi mu toll que Karim buy déplacer wu di dem di signer ay sous contrôle judiciaire duma ko def parce que sàcc ma rayu ma nit defu dara lo xam manamay xex sama dëkk ci démocratie laa nekk loolu mooy état de droit te li ñuy xeex dañuy xeex ñun duñu saga ñu toroxal doomu aadama duñu wax dara lu jaarul yoon ñu fen kenn ci benn xeex mais dañuy xeexal dëgg gisuma raison wu dem di signer ay sous contrôle judiciaire du ma ko def loolu nag ma ni Bayna Gueye membre mouvement nitu dëgg la Ousmane Sarr membre mouvement nitu dëgg la bi société civile bi dem di gisee gisante premier ministre bi ñoom dañu fa taxaw rek yuuxu libéré Pape ñu jàppale ñu ngi mois la ñu tëj loolu injustice boobu gis ngeen nit dof ni ñu ko def tëj ko gis ngeen ci ba taay ñuy saaga gis ngeen fi ay ay activistes yu taxaw saaga ba doy président bi recevoir leen taxaw ak ñoom te nii doof saagawul kenn saagawul kenn waaye su su effet de la colère la waxee te ni mu waxee da ngay xam ni kii nii waxu seen la rek man gis ma lu tax ñu war ko mën parce que ni doof nit ku yiw la nit ku gëm boppam la gis ma lu tax ñu war ko téye di yóbbu ko institution di ko tardé alors arrestation série d'arrestation yooyu noonu ñuy def di utiliser justice bi ñun loolu lañ àndul surtout ñu ne rappeurs yi dañoo dem palais présidentiel ne président bi euh, dañu bëggoon nga bàyyi Karim Xurum Xax

bokk na si li tax si ñëwuñu sous contrôle judiciaire ok non kenn empoisonné ma yooyu moom c'est c'est ay intox yooyu moom c'est pas vrai quoi man j'étais très bien traité si kaso bi ñun ñoom ñu ngi woon si jàmm Somadou Diagne dafa doon tibbal ay boolu laax yu baax ay ceeb yu baax ceebu ñebe yu baax yee sama jaay dañu ko chaque fois ñun di lekk ba pare ñoom du jëf ñu tuddee gi aussi dañu joxoon benn traiteur bu indi plat yu baax man dama doon toog di commandé ku mu nekk hôtel naan tey maafe laa bëgg suba dama ne amoon benn problème si kaso sérieusement na benn bi nga posté woon bind ko doon naqarlu anam bi Euh, bëggoon naa nga ñëw si parce que yaa ngi doon naqaru lu tax ñu def loolu euh, na si communiqué bi nga xam ne yëg nañ ko di wax ne leeral bi bëggoon naa aussi foofu nga leeral beneen bi mooy euh, yow da nga naan wax si ay actualité politique ci tolluwaay réew mi mhm. ñu gis bi nga génnee bëri na loo xewoon si mhm. diggante bi bokk na si meeting bi nga xamante ne Ousmane Sonko defoon na ko mhm. ay kàddu yu fa doon jub par rapport ak appel à la résistance ak riposte bi nga xam également waa coalition Benno

dina xex dafa am ku nekk yoon la quoi ku nekk fi nga mën a yem nga yam mais rap en réalité ñun dañ kon kon ni fu ma la di wax R bi mooy rocceeku A bi mooy ci àdduna yi P bi mooy puukare rap c'est une révolution léegi jeune français naan euh, révolution l'art et poétique rap c'est une révolution léegi carrément naan c'est une c'est une rage qui s'exprime à travers euh, à travers l'art c'est-à-dire ñun rap liñ ci xam mooy xeexukaay baatu askan bi la moo tax xurum xaq ci rap sama conception la woon ci rap du sama tur ñun rap xur mooy ci suuf xaq mooy dëgg mooy dëggu ñu nekk ci suuf la voix des sans voix kon les sans voix nag ñoom boo yoree seen kàddu Sénégal ñepp gis nañ Sénégal fi toll sénégal yi lekkuñu ba suur sénégal yi yamatuñ naanatuñ ba mandi ay jigéen di wëssi ñu leen ci ay charrette ay ay ay ay ay centre de santé yo xamni amul sax compresse ay problème ambulance di am ay jigéen di tak ay charrette ñu ni tek ci ay charrette ñuy wëssin donc yoy yëpp am Sénégal ba noppi jafe-jafe Sénégal yi diko dund ay nit nek ci benen côté bi di fowé ay milliards ñepp gis nañ ko yak alal bi comme pas possible sàcc gu miti la Sénégal yi le pouvoir bi nek fi sàcc boo xam ni dafa doy dafa jéggi tey léegi sax dama ni sàccut bi dañuy juuroo sax parce que maa tey la parce que ku dem ba nëbbatootoo nga sàcc ñu xam ni sàcc nga mu la ni sàcc ngay porté plainte la donc alors loolu mënuñu ko gis rappeur war ko war ko war ko war ko war ko kaas war a taxaw wane rap en fait loolu mooy rap en réalité ñoom rappeurs yi ñu dajaloo dem taxaw ci kanamu président de la république di fa wax bay négocier ay sorties nit wala ay sorties diw nañ ko bàyyi ak duñ ko bàyyi maintenant li si nekk ñaar il faut président du Sénégal les hommes politiques sax wax parce que après dafay keneen ont ñu hip hop le rap rap rap du administration amul directeur général c'est la rue la rue baromètre bi xam fa la nek ci ben boy bu saayfa bu nek ginaaw ray instant di ben boy bo xam mi nek ci bi di improviser baromètre hip hop nek kenn mom ko ñom mën nañ taxaw def dem ne dañuy hop que dara ci hip hop parce que le rap en réalité ñi nek ci kaw sax bu underground yuqu rab bi vrai secret hip hop manam li ci nek dëgg naan sax ñom duñ ko maîtriser duñ ko xam moo tax boo animateur hip hop foog muy dafa melni comme day réinstaller waat ay affaire pour mëna xam ñi nek so rab non lay doxé donc ñom nañ xam ne ñi demoon fofu amul benn njëriñ bu ñu amal état du Sénégal amul benn njëriñ depuis état du Sénégal bi mu ñëwee di joxé ay subvention di wo rappeurs yi chaque année ñu jox la 4 millions 5 millions ci la rapport yëpp bàyyi cas bi ran rangale sen pot taxaw buntu paré di yalla ñom ñëpp mais gatché la ci xumaan gàcce la ci euh, ci ci nu mu tudd euh, non pas xumaan euh, matador ay mag laa lay wax de gàcce la ci Baye Souley sama grand ma ko respecté sama sœur la takk sax ah gàcce la ci Baye Souley ñu ma wax ni ay old school lañ gàcce la ci non pas dégeti ñooñu ay dégeti kese rek audience la président Macky Sall dégeti xam-xam kese la yàgg na révélé président Macky gàcce la xumaan rek limu am limu mu daf ci limu def ci hip hop xumaan kessé kessé rek warona am gàcce Tafa bu Dabarens diko présenter président du Sénégal Tafa bu Dabarens di présenter xumaan président du Sénégal. Matador au secours ñoo xam dañu yàgg œuvre ci hip hop ñuy sàggan ba Tafa bu Dabarens di len présenter président du Sénégal donc il y' a problème quoi en réalité lool rek problème la parce que heure bi waroon fekk ñom Matador bu Sénégal jaxlé ñu woo mu ñu tok Macky Sall di muy expliquer Macky Sall dans les rêves ba si xumaan pareil dégg ci pare parce que ñoom ils ont œuvré dañu liggéey lu bëri ci hip hop dañu wax deug rawati na nak ñi dof nek ko xamanteni ni lim def ñëpp gis nañ ko te bokku na ci li tax ñu arrêté nit dof parce que ñom dañu créer affaire clan pour xex ni dof xam ñu utiliser xam nga Sénégal rek ñom dañu mëna wor pour xex ni dof mo tax ñu dugg ci ñu dugg ñoom yëpp mais pour mu leer leen leen hip hop ga galsen bi gëmuñu Macky Sall ànd ñoo état te ñi ngi fi di rap di téwol hip hop real hip hop lolu aussi c'est c'est très important